ak jabari di la li si yàlla wax yàlla kay wax na lu mu si wax boppam eh xam nga lan la nekkuloo oustaz oustaz Modou Fall de dégg lu ma la wax nekkuloo oustaz Modou Fall ba nga may naka di moo def mel ni école un deux trois yooyu nekkuma foofu is lan mooy sa problème kii lan mooy wax bi. mel ni xar bu gis mbooñ mel ni muus bu góor bëgg tëbu di yéeg ci kaw zinc bi di yuuxu guddi la moo tax momoytu ci menuisier métallique bee laa dem su may génn kànnaar la ba nga dëgër su ma ñëwee ubbi na xanaa su ma la findi feere nga findi feere lan ki na la ngay ngay findi feere xam nga li may findi feere ndax xam nga li ma sali double keneen laa koy def ba mu dëgër këj ma sama yoon su ma ñëwee ne karaj karaj ma ubbeeku xam nga ma laax. yaa yoruma dara mais bi laa xam ne yaa yoruma eh. Ah, yoruma ah yoruma de. ah déedéet dara. loolu la am rek. non laamu naa déjuma ñoom laamu naa déjuma ci kanam ko naan ah, on se capte. Oh. yaa may def lii. yéen a ngi soo waree ba nga koy def noonu nga wax. noo bokk da nga koy mbaraan kon su ma jëlee vingt mille waroo toog fii di kaas te yaa dee gis nga mais soo demee di ko def eh, nga yëg ñu yëgoo moo gën tey jël naa ko lekk naa ko rës naa jàmm xarit ak lépp laa si nga xam su yàggee rek di nga xam lool ah, hmm. waaw incha ko jaay yaa dara de kan man ah waaw gis nga de ah nga coofe tey waaye dëggal loolu eh daal nga def man yëguma ko sax di ah. nga coofe boobu yëguma ko sax yëguma ko sax yëguma ko ah. ma ne dangaa coof nga ne yëngoo ko man kon néeg bi amul seetu. dafa coofee laa ko ne sama coofi sa sama jëkkër sax sa yoon nekk si masamaa nag coofee uh, kaaw dafa wow gàtt rek waaye seet man rek bu soobee yàlla waxuma la coofe ñaawaayu kaaw sax ko gis bay gis coofeem. ah waaw yow xamoo ma nag. yaa ngi noonu toog yaa ngi may dégg. billaay jël soo amee chance man moo la ko may. seet ma si la mais man sama jëkkër kafuma ci fow ma ci nay leer rek man xale du ma xajal ma man xajal ma. Mbène. bët danga naa. Eh, ko man damaa doxaan kenn man ki doxaanuma kenn kenn doxaanuma nga naa ma ay mbuubu. defe nga ni mën nga maa lëre cas. waaw man damaa nekk ak kenn man sama soble si laa tal di ak sama marchandise yi ma yóbbu. naa la xamal ñaar mus ngaa gis séeréer bu xees. waaw foo ko gis mooy mberkele. buñ jabee duñ bay. waa gis nga bu ma la doxee ba dajeeg yow moom fen fen rek ma gis nga taxaw ak moom barke faape su ma la nee niip.